may di ko Coro Sarr maana Coro Sarr góor gi ñëwal fara wadd njaag daara wadd njaag góor gi ñëwal tàng waykat bi def nga lu ma neex tey moom wax dëgg yàlla su may dem pale yow laay àndal xam nga lii dafa baax lig ma waxal ni mooy farawaade jaag tagg ma wan ne ma yow yay dem tey bu soobee yàlla duma la fi bàyyi ginnaaw ay jàmm Macky woo na ma démb xam nga du ma def dara leen ump léegi nag waxtaan nag parti bi rawatina nag Daouda Niang mi nga xam ne mooy maire Rufisque moom laa yor discipline de parti moo ko yor moom ci boppam laay àndal su ko defee lu ma fa waxtaanee bu ëlbatikoo dellu wax ko ñi nga xam ne ñoo ne ci parti pour ñu bañ a yëngu-yëngal Sarr Ba la donc Daaro Niang maire Rufisque wëllëre bu yàgg moom sama digganteeg moom moom rek laa fi gis koo xam ne ba mu jàppee ma tey kenn mënu koo détourner ci vision libérale bi mu am envers man muy maire muy maire Rufisque di Alaaji Daawda Niang ñu koy ñaanal yàlla defal ko jàmm te délégation bu fatt taraj rek laay àndal waaye jiital ko ci ndax moom bokk na ci magu parti bi moom Daawda Niang bu Rufisque su ko defee dinaa dem ànd ak sama soxna yuyaan euh, ànd ak Wore Sarr waaw ànd ak ah. Baragay ànd ak Daouda Wade Doudou Wade ànd ak ñeneen ñi su ko defee bu ñu demee ba génn liñ fa jëlee ci waxtaan ñu jox ko waa parti bi ñu yëg ko mais affaire bi dafa mel ne acier ak weñ acier da jàpp weñ fu mu ko fekk xëcc ko Macky mooy weñ may acier wala Macky nekk acier may weñ ni mu yàkkamtee bien ma ñëw pare fa man tamit bëgg naa fa ñëw pour xool maanaam la ma fa bàyyi woon na la demee ginnaaw jàmm gis nga Macky lii bu ko defoon depuis 2012 kon yii yëpp am yii yëpp du fi am ndax man mag laa man neex naa nekkal ki la def tey ba nga doon li nga doon waroo koo fàtte lii mu defal Abdou Diouf su ma ko defaloon tey gars yi wax dëgg yàlla kenn dootul waxati benn wax tamit lu mu gàtt gàtt mënoon na ma di def ci yooyu waaye nag yooyu weesu na su ma demee daal li ma koy wax mooy ñii say raq nañu boole mënee dimbali nga dimbali leen dimbali Sénégalais yi fexe ba ñépp ànd nekk benn non man Abdoulaye Wade man man namuma dara man mag yi mu nekk ni yëpp maa ko jàngal kon nag jubóo bi am na solo ci moom am na solo ci man ni mu amee solo ci man mooy mooy ñu wane rek mag bu demee ba nekk mag am na yoo xam ne du ko xëccoog doom moo tax may ñaar yàlla ñu ñëpp ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm danaa fa fanaan nag ñetti fan <laughs> naa fa def ñett fa fan xool sa bopp ah sa fare ñaari fan la ma waxoon ñetti fan la ma semaine la ma waxoon ma ko du ma fi def semaine ah. waaw dina fa def semaine dinaa fa def ñetti fan benn fan bi moo ma demee samedi bi laa war a dem ëllëg ëllëg ci weekend bi def fa weekend samedi dimanche lundi ma ñibbi ah. kon nag yow waykat bi na fent way bu wees boo xam ne bu ñu duggee pale rek moom bu ko déggee yaramam daw ayca kon maam yàgg loo fi gën a yàgg ci loxo yàlla la nekk ndax boo ne ma yàgg fi ñun ñëpp dañ fi bëgg a yàgg waaw déet déet déet dama ne ab géwal ab géwal day fent mais yàgg fi loolu du ngay ñaan ma yàgg fi. fa tamay di jiñ nga naa la daale daale wayu buur naa déedéet Tuuba laay jëm fan laay yendu ay tabari fanaan man magam jëmm fan laay fanaan ak ay tama waaw pale balaa jëm lan la fa ay tama di def yow koy seetal way boo xam ne boo ko wooyee Macky Sall ronga ñoom dina tuur waaye ay foo yendoo ay tama di fanaan mel na ka man ci juddu bi laale woo am ci taal gis nga yéen géwél yi boo leen joomee rek ne laay laay la laa <laughs> ay garme ngi man benn tudd ma Sarr maa ne Coro Sarr waaw Ablaye Wade mi nga xam ni moo ne ci réew mi waaw yàgg a teral Sénégal. ay waay. de baaxul de yow ba tey li nga war a wax wayoo ko waaye waaye boo xam ne Macky Sall bu ko déggee yaramam daw mais ay ndekku teral saa yow waaye loo xam ne bu ko déggee xam ne kii waykat bi kat dugal na ko ci émotion. bëgg lool ma ki sa baaya ngeen voilà ma ki sa baaya ngeen laa dana bëgg lool ma ki sa ay waay ni ma ki sa baaya ngeen laay wadd ñëw na pare ma ki sa baaya ngeen ma ki sa baaya ngeen